sama doom feebar na pendant trois mois waaw li ma ko doon faj nag mooy fittu Saalum yooyu laa ko doon faj fii ci ci Pout waaw sëriñ yu ne dem naa ci waaw fii nag la ko yàlla dogale sama kër lañu ñu waaw di ñëw fii kii mën naa faj wala mënul faj léegi ma indi pour faj waaw bu wéree baax na bu wérul lii la yàlla dogal jeex ma ko indee dafa wàcc rek ñuy dem ba fële mu wàcc daanu toog ci suuf après dem ah, kii nag moo ma moo wax ne ma dafa gaañu après menuisier tapissier la doon liggéey waaw feebar bi amul gravité affaire bii la affaire u tab yii la affaire bi daal moo ko rey moom laa gis du feebar parce que man sàgganuma sama doom pour ñuy dem ay àll yooyu bala ngaa ñëw di nga raxasu bala ngaa def dara di nga raxasu dara jotu leen parce que aussi tamit du ñu boucher ñoo ngi ci euh, lan feu kon ngay toog kon moom yàlla ko dogal ci affaire bi rek mu dal ko rek waaw avant ñuy euh, affaire bi mbas mi sax la ko dal parce que mbas mi deux mois la te man maa ngi ci troisième mois. Euh, bu di occasion bi sax di baalu ñëpp ak di ñëpp ak di wax ni daal ñun bi ñu yeewoo la ñuy woo téléphone.

Euh, doomu adama bu ñak bakkanam ci mbedd bay xalé ndaw ñofi fi dëkk te xalé amul pour si yeewoo ñaar fan ñett yu nekk fekku dé ci buntu kër ay xalé diko gis manam euh, ci benen sens dañuy dem ba euh, dootuñ jox dé benn solo bi te gis nga bo joxul dé benn solo bi ray ni sax da lay yomb parce que da ngay dem ba da ngay banaliser da ngay banaliser dé te bakkan dafa fort te ñu nangu nak ay xalé yo xam ay fukki at ak ñeen fukki at ak juroom matuñu ko sax gis nga leen tay ñu tim koor bi te wa koñ bi nee nañu pour la première fois li am fi

tey xamuloo lu muy niru ay nit di yuuxu di say ñu naan dañuy faj ñu baleen ci day dem ba mujj gi ndof gi day yokk agression bi yokk te xamoo ban pratique la xamoo ban façon médecine la ñuy def loolu nag pour un pays boo xam ne dañu réglementé mbir yi dañ ci war a wax régler ko une bonne fois pour toutes beneen bi may wax ci télévision yi ak rajo yi ñuy fay lu ñuy publicité di publicité façon ngi faj feebar bu nekk am na ku nekk fii Thiès boo déggee rajo maanaam bépp façon ngi feebar boo xam ne am na ci adduna bi nee na da koy faj te loolu à la amul benn foofu kii xam-xam bu ko am du médecine moderne bi même boo demee ci médecine dañuy spécialisé kii ci lii eh, eh, euh, orthopédie pour spécialisé kii ci leneen ak leneen ba nga am médecine générale sax doo faj lépp mais munuñu d' accord nag loolu bëgg lalu rek ci Thiès di law ñuy ñaan suñu mbokki journalistes yi waxuñu ne bu ñu def lu publicité mais publicité yi daw ci rajo yi joué na ci effet fële ca Normandie fekk naa fa tableau ñu def ko fa def panneau d' indication seetuma ko moom dama koo damm dugal ci sama oto dem sànni man sétan na ci télévision yi bu dul du ñaar nit ñi di ko décrier même seeni mbokk journaliste man sétan na ñuy wax ni di woo nit di leen wax ni li ngeen di wax ni est-ce que du danger pour un pays mais à la limite si l'État central ne prend pas ses responsabilités pour vraiment organiser ce secteur là té ñom ci seen bi da ngay dégg ñuy wax ni lii te gis nga garab gi euh, kenn ñu kenn mënta faj mais lo xamul luñ koy doser ba paré garab bi ñuy xànc di ko joxé mais dafa am résidu de bois résidus de bois yooyu boo ko naanee reesul mais su fekkee ni sa estomac ak wu ko mais dangay dee yooyu nag la ñu war a xoolaat ndox yi des fois ñu ne la xoojal diw nga dem comprendre nga naan ko mais on laisse passer comme ça les gens meurent comme des mouches ci pratique yu mel nii loolu tax ma ni sànq dinañu bind procureur lettre dès mardi incha allah commissaire centrale wax naa wax naa ci kii représentant fii pour ñu convoquer lu waa ji xool ban façon ngi liggéey lay def parce que nag am na ci loo xam ñu ko bàyyee mu wéy nous exposé les comme li nga l'État central, état central jël disposition Un exemple su amee ñaar day l'État. état ni couvre-feu arrêté décret ne bouquin, marché yi tëj Non nous décret décret vraiment wax ci dit